ci ay réew yuy néewal doole mhm. yamul rek ci diggante Palestine waaye dafa egsi ba ci civilisation bi lislaam am nga xam ne moom rek moo ko am àddina wërngal képp mhm. ci contre acte contre nature yiy am lislaam taxaw di ko defendre di teg ci ay responsabilité mhm. loolu dafa mel ni am nañu am doole ñoo xam dañoo taxaw ngir jële ko fi ba tax ñu jële ay code indi ay ay ay ay loi voté ko ngir fas yéene ñi nga xam ne dañoo dox jëm ci jikko yooyu di yàqu ñu protéger leen ba nga xam ne dañuy am doole joo xam ne ku leen laal yoon dal sa kaw te ñu bokk nañ ci booy xeex crime booy xeex crime ndax tey bu ñu wax viol kirim la tey am na ñoo xam ne ni bu bu bu ko nit defee coow dana bari lool ci réew mi mm-hmm. tey ñi ngi yàkkamti ab sëñ daara bu ko buñ ko tuumaal rek bañ gaaw publier ko yaatal ko te terewul ñi ngi daganal nag ñaari góor yoo xam ni war nañoo mën a ànd sëy mhm. bëgg a daganal ñaari jigéen itam na ci ci ci ci ci ci domaine bu mel noonu mhm. loolu mu nekk loo xam ne ni jàpp naa ne buñ ko bàyyee mhm. du ñun waaye sunu njaboot gi ñëw à l'avenir que tey ñun sunuy waajur liggéeyal nañu sunuy maam liggéey waaye nun nag noo mujjee poussé bi ndax dafa war a réer wala dañ ko war a fomp ba mu set yeesalaat ko jox ko sunu njaboot ñu téye ko lan moo waral ànd saa mu jëm jikko yi ci yan but ngeen di dox Euh, bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye balaa boobu ñu ñëw ci li nga xam ne ni mooy cause bi waral ànd sàmm jikko yi. waaw jërëjëf ñu ngi lay <clears throat> jaajëfalaat bu baax. Mm-hmm. Euh, macha allah ci ni nga jiitee émission bi. Mm-hmm. Euh, rafet na suñu xaamitu jërëjëf Diop. Mm-hmm. waaye di nuyu sunu naataango sunu àndandoo ci liggéey bi ci wàllu yàlla. ak ci wàllu ànd sàmm jikko yi mhm. muy Oustaz Saïd Diallo tabaarakallaahu mhm. nekk jàmbaar mhm. nekk ko am taxawaay nekk ko disponible ci liggéey bi macha allah yal na ko yàlla fay yiw waaye di ma baal tuuti rek ma def ak ñaanalaat bu baax a baax sëriñ Babacar Mbuum ni nga ko waxee yàlla dëgëral ko te wéral ko ndax li indi ànd sàmm jikko yi maa ngi koy wax léegi ci euh, palaato bi ma jógee dafa am jëmmi jamono dañuy toog rek ñu déclaré nu dafa am benn site internet bu nu ubbi. historique bi dana dimbale ñu bari ñu dab ànd sàmm jikko yi nga xam ne tey lañ ko dégg. Euh, biñ ma wooyee ku tudd Amdi Moustapha boobu maa ngi nekk Seneweb ba léegi sax maa nga fa. moo nekkoon technicien bi. yu mel noonu yu ci bari dañ ci daan waxtaan ma ci wan yu bari. ma ne ko ñun ustaas yu bari dañu ko xam. yéen techniciens yi nag fi jamono toll. ak mbon gi songu Sénégal lu ci bari yéen a koy njëkk a yëg mhm. rawatina ci internet bi ngeen nekk mhm. ma xëy benn suba teel ay 10 heures mu woo ma téléphone wala mu yónnee ma message mhm. ci euh, Facebook bi ne ma yéen de wala yow de yaa ngi def aaxiru zaman mais nag yaa ngi soog di am loo aaxiru zaman lien boobu ma la yónnee duggal nga xool ko ma dugg ci lien bi bi ma tàppee gis mboolem lu doon vidéo scandale yu xew tey nii ñu koy dugal ci réseau sociaux yi mhm. nit ka futteeku na def na naka su dul noonu mhm. site boobu la première fois ci histoire u Sénégal ñu gis site boo xam ne nii yu ñàkk teggin yooyu noonu le ma nga ca mhm. te ay sénégalais yoo xam ne sénégalais lanu ak i sénégalaise nekk ci biir mu ne ko mais lii fu mu xewee mu ne ma Sénégal site bi sax dèjà tur wi ni mu tàmbalee mooy wane ne Sénégal la xewee man nag man moom dugg naa ci mais yàgguma ci. mënuma continuer di ko seetaan gis naa daal quelques quelques vidéos. ki ma njëkk a yëkkati téléphone woo ko mooy Serigne Babacar Mbow. ne ko am na lien xam naa nag nga jéggal ma mais xool ko mënul ñàkk. bi ma noppee ci moom ma wax ko Adama Mbow. defe naa moom jotuma ko woon yónnee lien bi dama ko expliqué. Mhm. woo ma Makhtar Gueye bu Jamra. Mhm. woo yeneen ñeneen ñu ma xam ñu nekk ci waar bi mhm. pour ne leen lii moom warees na ci am taxawaay ndax nag mhm. Sénégal bu demee ba nga xam ne tey site internet mhm. amatul kot amatul dara connexion ngay am dugg ci site internet di gis vidéo yi gën a ñàkk teggin ay sénégalais di ko def loolu noonu la warees na ci am taxawaay ci lañ dajaloo reeño ci jàkk imam Adama Seck bi nekk fële ca parcelle sunu première réunion Euh, bi ñu réunion keroog muy sëñ Babacar Mbuub sëñ Adama Mbuub ba ci avocat ku tudd euh, euh, kii Mbeng mhm. Amadou Mbeng mi ñu nekkaloon démb mu nga fa woon mhm. mam Faatu Mbeng mhm. ñoom maam Maxtaar Gueye Jamra ñoom imam Adama Seck ñu ñëpp ci réunion ba keroog ba ci Abdou Karim gay nit dëgg ñun ñëpp ñu nga fa woon ñu ne lan lañ war a def ci tënk bi ñu dëppoo ci stratégie yi ñu war a teg première jéego bi mooy jug dem seeti kilifa yi mhm. gaa mënuñ leen a wax li xew mhm. mais mën nañ leen a junj mbon ngi dugg senegal mhm. ba lañ daan nëbb yu ñàkk teggin tey ñu fesal ko ci ay site internet ci la ñu wax ne nan la ñuy tudd baatu am da sàmm jikko yi mu ngi jugee ci làmmiñu imam Adama Seck bu nekk parcelle boobu mu ngi wax ne nañu ko tuddee alliance sàmm jikko yi ñun ñu toog rek ñu ne ñu ne baat boobu baax na mm-hmm. alliance sàmm jikko yi mm-hmm. ci la ñuy dox ba mujj lettre yi njëkk a bind ci ànd sàmm jikko yi loolu moo ci nekkoon mm-hmm. alliance sàmm jikko yi ñu bind lettre ministre intérieur euh, bind plainte dépo déposé ko ci table le procureur mais laataa loolu noonu la def nañu tournée jamono yooyu noonu la sëriñ Sidi Muxtaar moom moo nekkoon xalifa ñu dem Touba dem nañu Tiwaawan dem nañ ci kër yi diine yi ñu war a dem ndax ànd sàmm jikko yi ñu fàttali ne sunu Euh, allié première mooy nitu diine yi amul benn combat buñ mos di yëkkati bañ ko dooree fii mu toll nii di dem ci média di wax lu dul ne dagg nañ sunu paas dem seeti kilifa yi ba noppi ci noonu ci tënk ñu dem ñëw def sunu pelante def jéego yu bari yuñ ci def euh, yitte yu bari la ci biir yitte yooyu ñu doon dox mujj gi ci lañ ne alliance daal tur mën nga ko wax nit mën na ko bañ a xam nañ ko mujj tuddee rek ànd sàmm jikko yi mhm. ndax baat la bu simple boo xam ne bu ñëpp di xam la mhm. jamono yi man maay coordonné liggéey bi mhm. ndax bi ñu dajaloo noonu ñu ne ma gannaaw yow yaa signalé lu mel nii liggéey bi coordonné ko mais nag euh, boobu kuréel yu bari ñu ngi jiitu woon lu mel ne Adama Mbuub kuréel bi mu jiitu woon ci wàllu euh, défense valeurs yi ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom Adama kuréel bi ñu taxawaloon ngir bañ ak ngóor jigéen sëñ Babacar Mbuub am na kuréel yu mu nekkoon kuréel yooyu yëpp Jamra boobu ci ay juróom-ñett kuréel ak yu mel noonu la ñu toll mhm. ñu tudd ànd sàmm jikko yi mhm. tey mi ngi yokk ba yegg na alhamdulilah lu ma juróom fukki kuréel fi mu toll nii mhm. ci la ñu def ay jéego ba mbirum franc-maçon yi jaar fi boobu yëpp ñu ngi tudd ànd sàmm jikko yi bi ñu nekkee def jéego yooyu noonu le porte plainte ingénieurs yi fu ne ñu jaar fa ci mbir yooyu noonu le mais gouvernement bi ne tekk daanaka mel ni def cee tële dem na ba ay nitu victime ñoo seet si waa ànd sàmm jikko yi ñoo xam ne seeni vidéo lañ doon jël di ko dugal ci site internet yooyu noonu la mhm. mais nag mënul war a nekk lu ñuy wax ci kaw mhm. dañu woon li ñuy dox nañ ko dox ci suuf mhm. porte plainte dem gis ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci ci diggante boobu ñu nekkee ci loolu mu jël benn temps am na yeneen yu fi jaaraat toog nañ rek dégg fi jenn waay jarul may tudd turam ne jël na ay jigéen futti leen bañ set mu foto leen diw leen ban exposé leen fii ci Ndakaaru ca laaj nañ ko mu ne lu mel noonu li tax mu koy def am na jigéen ñoo xam ne lu tax ñu koy nangu mooy bu ay événement di jege si lu mel ne Korité ak Tabaski du ñu am xaalis fukki junne la leen di fay ñu nangoo futteeku mu foto leen exposé leen noonu loolu tamit jug nañ ci image yi ba léegi souvenir bi ñu mujj am ci euh, sëriñ Sidi Muxtaar mhm. bi ñu demee Touba man sëñ Babacar Mbuub imaam Diop fajaa aadama Mbuub defe naa ñun ñoo ñoo àndoon ci délégation bi. Mhm. dem yeggee ko lu mel noonu. Mhm. Euh, bi ñu ñëwee ñu taxaw ci ba moom ci boppam yàlla dogal mu dajee débat moom mi doon def lu mel noonu. Mhm. dajee débat ak aadama bu fii ci euh, télé bi nga xam ne nii fi laa nekk dafa liggéeyee. ba yàlla mujj na ci def sutura keroog la gëj a def loolu noonu lay ba fii mu toll. ba bàyyi ko. nga xam ne année bu nekk dafa programme noonu di ko def waaye ànd sàmm ko ñoo taxaw ba loolu noonu la dañ. am na fi yoo xam ne xëy nañ fii. génne ay clip clip yoo xam ne filmé woon nañ ko ba ko doon bëgg tasaare yàlla dogal ñu ñaam ci ay extrait fañ ko doon euh, filmé di ko di ko ànd sàmm jikko yi waxuñu dañoo euh, yëkkati téléphone fexe ba am téléphone artiste bi ñu woo ko wax ak moom euh, mu nangu pour retirer li nga xam ne moo jëm ci wàllu clip ba te lu mu naroon a génne la loolu lañ liggéey la ci liggéey yi nga xam ne ni nekk na ci suuf mhm. bi ñoo yëpp weesoo nag Euh, am na benn rapport tamit mën naa ko tudd dib dund mm-hmm. mhm. moom it def na fi benn clip boo xam ne clip bu ñaaw la ci jamono yooyu futti jigéen mhm. solal ko col gu bon def ko ci clipam mhm. moom it ànd sàmm jikko yi jóg nañ ci taxaw ba mu bind retiré mboolem télé yi euh, yóbbu woon seede ba ñu koy teg mu wax ne télé yooyu yëpp nañ ko retiré buñ ko tegee fekk boobu dañu naroon bu ko bàyyiwul ànd sàmm jikko yi day dem moom ci wàllu yoon bi ñu nekkee ci loolu noonu yëpp nag ba jëmmi jamono lañ toog rek ñu ne kat franc-maçon wu àdduna bi. senegal la ñu def mu nekk na la def mu nekk seen capital muy dakaar muy réforme bi fi bëggoon am. ànd sàmm jikko yi dajaloowaat réunion. ne nag bu njëkk ba ñu ñu séqaloon mooy ñu nekk ci réew mi. ak liy xew ci réew mi. mais nañ ñii tey ay force lañ yoo xam ne ñu nekk ci biti lañ. te nit ñi nee na ñooy dañoo am doole. nee na ñooy noonu laa koy tuddee muy franc-maçon yi. dëppoog dikkug Rihanna gaag yu ci baree baree bari. bi ñu dajaloo waxtaan ñu ne nag dañuy changer stratégie. ndax bu njëkk ba sénégalais lañ doon waxal ànd sàmm jikko yi ñëpp xam nañ mais il faut ñu tur woo xam ne buñ ko waxee. Euh, mboolem tubaab yi nekk ci àdduna bi tur woowu danañ ko dégg. ci lañ jëlee ànd sàmm jikko koy léegi tuddee ko collective non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité collectif boo xam ne day bañ lépp lu jëm ci wàllu franc-maçonnerie ak lu jëm ci wàllu ngóor jigéen loolu moo dugal ñu bari di dégg ànd sàmm jikko yi la ñuy xeex franc-maçon yeeg góor jigéen yi loolu après la dab mhm. mais franc-maçon euh, ànd sàmm jikko yi ba muy juddu mhm. site internet yu doon wane yu bon loolu moom moo juddloo ànd sàmm jikko yi moo jiir loolu mhm. ay artist yu doon fu futteeku mhm. ay futti ay jigéen mhm. ñooñu lañ njëkk a xeexal ci wàll googu noonu le ba franc yi di fi ñëw nañ ñu changé tour tudd non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ci lañ jóg réunion waxtaan defaat suñu tournée dem ci xalifa yëpp ne la nag bi la ngi bëgg a xaw Sénégal Sénégal franc-maçon àdduna bi tey nee nañ Dakar lañ bëgg a def mu nekk seen capitale gis nga suñu yëngu-yëngu yooyu dëppoog Rihanna dafi dikk mhm. tey ku dugg ci biir euh, internet bi boo tapé turu Rihanna Sénégal rek mhm. collectif ànd mu jikko yi ñooy njëkk a génn mhm. léegi rek maa ngi doon xool benn article maa ngi gis Le Monde mi ngi bind ne am na benn collectif buy bañ dikku Rihanna noonu la titré article mu ne collectif boobu dañ ko def honte journaliste bi noonu la titré article journal Le Monde mboolem journal yu mag yi nekk ci àdduna bi benn kuréel boo xam ne lu mat fukki nit ñu engagé wu ñoo ci nekk ñu bind lu ne ñu saaga ba këru franc-maçon yi nekk France nga xam ne ñoo gën a mag ci loosu maçonnerie yi mhm. keroog jour bi ñuy amal suñu journée bi fii ci mosquée bi nekk ci wetu aéroport mhm. ci lañ jot seen benn déclaration ñu ne dañu bëgg gouvernement Sénégal jël seen responsabilité ci ñun mhm. ndax ñoom franc-maçon yi du ñu nangu benn kuréel bu ndaw ne daf leen di empêcher pour ñu ñëw def li ñu bëgg a def faale wuñ leen keroog ca journée ba la ñu lire seen déclaration ba mu jeex. Mhm. mais taxul ñu rëkki ni mhm. ñu ne nag Rihanna déclaré nañ ko muy personne non grata ci Sénégal du fi teg mhm. tànkam. def tournée média yi fu nekk ñu dem fa. mais laataa Rihanna dikkam bi noonu la franc-maçon yi am na benn hôtel bu nekk fii déposé woon nañ fa seen xaalis. ba foofu lañ waroon a dal. borom hôtel ba moo leen woo ne leen kat seen xaalis a ngoog ndax ñu nekkatuñ en sécurité. moo hmm. jumul mu niiru si xew ma mhm. muy muy muy hôtel bi ñu tuddee Méridien tey mhm. foofu lañu waajoon pour war fa ñëw mhm. gannaaw yàlla yëngu-yëngu ànd sàmm jikko yooyu moo tax franc-maçon yi ñëwunu Sénégal annulé seen daje bi am na beneen réew ci réewu Afrique yi ñoo xam ne ñoo leen mujj dalal mais Sénégal dikku fi léegi nag mu des Rihanna ndax xam nañ ne dikku franc-maçon yi ak dikku Rihanna ak Macron ñoo ànd léegi ñun ñu am renseignement ci biir ànd sàmm jikko koy ne ndekete école yi nekk Sénégal yépp ñu ngi waajal dikkug Rihanna xale yu jigéen yi ñu ngi naan Rihanna bu ñëwee concert bi ñu fi war a def ñu ne lii bu ñu ko seetaanee Rihanna mooy kan mooy koo xam ne jaamu seytaane la moom ñu ne gëmul yàlla yàlla du yàllaam mais seytaane mooy yàllaam te dafa bokk ci ñu gëm mbirum nudis nga xam ne futtee ku def yaramu neen sol yére da leen di déranger moom ñi ngi defal ñooñu promotion la bokk def ay clip bi ci woy seytaane mii yàllaam mm-hmm. ñu ne ku mel noonu nag ci suñu réew mm-hmm. su ñëwoon ne day def benn concert d'accord mais ñu ne dafay ñëw pour jiite benn collecte mm-hmm. bu jëm ci wàllu éducation bu jëm ci wàllu éducation Rihanna moom lañ jël moom moo nekk ki war jiite collecte bi ñu ne bu ñëwoon di def concert sax c'est bon ñu ne réew mi réewum démocratie la ànd sàmm jikko yi ne Rihanna du fi te tànk attaque bu nekk dégg nañ ko ci imam yi mag taxaw nañ fii xutba nañ ñii ñooy ñan ba naan Rihanna du ñëw Sénégal. Mhm. ana Fatima Rihanna yi xaw ma lan Rihanna xaw ma lan Rihanna mais moom ba muy wax xamuloon li xew. ndax nit mën na jàng diine di ba di wax te xamul li xew. Mhm. mais ñun ñi nekk ci terrain bi. nekk à jour nekk à jour à ci actualité bi. xam li xew. Mhm. ñun moom kooku noonu taxaw di ba naan mooy ñan ba Rihanna waru fi ñëw duñ ko déglu. ñu def suñu yitte ba Rihanna bi muy ñëw Sénégal. waajal gañ ko waajaloon ak dikkam ak lépp. dañu mujj changer programme ndax dañu programme woon teertu ko aéroport mhm. mu waroon fee def concert mhm. mais Rihanna ñëw na ba yegg si Sénégal nit ñi naan ñëw na ak ñëwul mhm. bi ñuy ñëw garde yi gën a ay ci àdduna bi la luyee pour ñu ñëw garde si ko Sénégal ci benn kuréel bu tudd ànd sàmm jikko yi ba ñëw na ba nekk hôtel nit ñi naan ñëw naan ñëwul benn yoon la Rihanna affiché wu Sénégal mooy bi mu demee ci centre Abdou Diouf bu jam ñaajo ñuy def collecte bi sol colom googu ñëpp nee nañ kol rek a ci desoon mu doon ibaadu mhm. mooy colom gu gudd googu noonu leen mu sol mhm. koo xam ne nii col gu bon ci àdduna bi moom moo jiite sol ko mhm. benn yoon boobu la affiché wu jëlaat volam ne te bi ba Macron di dem ndar demul ndax lan renseignement yi dañ ne ko sa bakkan wóorul ci Sénégal lii ànd sàmm jikko yi ñoo ko liggéey bi ñu jógee nag ci lu mel noonu ànd sàmm jikko yi après collectif bi di doxee turu non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ñu bari xaw a ragal mhm. ndax tur bi dafa rëy ci ñoom mhm. ci lañ mujj ne nañ bàyyiwaat tur bi ca wolof ba mhm. <laughs> waaw waaw bañ ko tuddee ci noo à la franc-maçonnerie mais ñu tuddee ko rek li nga xam ne moom mooy ànd sàmm jikko yi ah ci la yàlla dogal nag lu fi xew lu jëm ci wàll yu te mooy gën a yaatu sax nag mooy gën a yaatu ñu jug ci taxaw ci diggante boobu nga xam ne ñu ngi koy delloo waat ci ànd sàmm jikko yi man ci laa gis Babacar Mbuub ak engagé di mu engagé ma man li imam Babacar Mbuub man mënuma ko maa ngi rappelé bis bi ñu bi may wax ne nañ ko jël mu nekk ci bopp liggéey bi boobu man maa woon fekk boobu dañuy def tour chaque mois Oustaz Sahid xam na ci dara dañuy dem kër kenn ci ñi bokk ànd sàmm jikko yi fa la ñuy dajaloo waxtaan jël actualité waxtaan ci mhm. man bi ma ayee euh, ca golfu ci la ñu wax ne nag léegi Babacar Mboum nañ ko def mu nekk coordonnateur bi. Mhm. mu jógee ko ci sama loxo. Mhm. waaye li nga xam ne moom moo jàlloo noonu yëpp. Mhm. ñoo nekkoon di ko coordonné. waaye gis nañ boobu Babacar ak engagement bi mu am. ak taxawaay géeg yitte ju kawe ji. ma gis ne kii daal li man ci liggéey man mënuma ko te disponibilité bi mu am wax dëgg fa yàlla ñun amuñu ko ci lañ ko ko dénk bu fekkoon ne fekk na ñun ñu koy Euh, coordonné mu nekkoon ci benn mu yóbbu ko junni ci itam yu koy tabaraka loolu nag moo dem ba jur nag mhm. ñuy dox ay jéego ba yegsi ci li nga xam ne mhm. xam naa moo waral tey jataay bi mhm. muy criminaliser ak ngóor jigéen mhm. waaye lii mënu ma ko ñàkk fàttali mhm. ndax ñu bari dañuy dégg ànd sàmm jikko yi dañuy xeex franc-maçon yi góor jigéen yi mais xamuñu mbir yi fan la déparé mais mi ngi déparé woon ci fi vidéo yu bon yi nga xam ne tey mi ngi tasaaroo ci internet yi ba muy door di dugg ci réseau sociaux yi maanaam di dugg ci site internet loolu moo tax ànd sàmm jikko yi judd ñu ne nag kuréel la boo xam ne nii euh, amul couleur nii tariixa ba ci religion ànd sàmm jikko yi chrétiens yi ñu ngi ci biir ñi gëmul diine sax ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi loolu dana jaaxal ñu bari maanaam baat bi ni mu tudd lañ wax ne képp koo xam ne loolu ñor na la kaay mooy ànd sàmm jikko yi foo manti bokk bokk fa murit ba tiijaan ba xaadir ba layen ba ibaadu ba chrétien ba ku manti doon ànd sàmm jikko yi sa ànd sàmm jikko yi la mhm. l'essentiel ku ci nekk la nga gëm mhm. danañ la ko respecteel mhm. nga nekk ca di ko dund mhm. mais bu cause ànd sàmm jikko koy jotee mhm. ku nekk na denc la mu gëm mhm. ñu bokk ñun ñëpp défendre cause boobu buñ paree ku ne delluwaat ci la nga gëm ku ne delluwaat ci la nga gëm léeg-léeg ñu am benn njaxas buñ gisee benn kuréel boo xam ne dañuy gis ibaadu yi toog murid yi toog tiijaan yi toog xaadir ñu naan waa mais ñii moom ñooy ñan ñii nan lañ mën a toogee ñoom ñii te ñii nii nàngam te fekk dañu xamul ne cause bi nu boole moo gën a rëy loolu nga xam ne moo tax nga yaakaar ne waruñoo toog muy benn kuréel boo xam ne ni defe naa ci Sénégal bokk nañ ci kuréel bu réy réussir lu mel noonu mooy mën a dajale tarixa yi mën a dajale association islamique yi ba nga xam ne tey ànd sàmm jikko yi bu jotee ñëpp bu wootee ñëpp ngay gis ñu ñëw toog ci alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla loolu jëm kanam ba ci ah. chia yi waxuma sax ñu bokkul ci tarixa ak association islamique mais chia yi ñëpp ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi. dëgg la euh, tabaaraka jërëjëf euh, Imaam maa ngi gis euh, benn mbokk mu nekk Amérique mi ngi may wax ne nu may def ba bokk ci kuréel bi ndax yàgg naa leen a topp. Mm-hmm. xëy na balaa jotaay bee jeex di nga am foo xam ne di nga fa mën a jaare ngir bokk ci ndax ñoom it ña ngi ca àll ba. Mm-hmm. bàyyi seen i kër fii ak seen njaboot. mais bu ñuy seetaan vidéo Sénégal yi ak yenn média yi dafay mel ni Sénégal moom dara baaxutu fi. ñoom gis-gis boobu la am te loolu da leen di ragalloo mhm. euh, te loolu jàpp naa ne lii dana bokk ci li leen di dalal xel euh, kon mu nekk loo xam ne ni euh, kilifay diine yi lañ ko defal mhm. parce que tey ñoom bu ñu joxee seen signature joxe seen kase joxe seen mbooloo ci ne nañ ko def c'est parce que ñoom loolu lañ bëgg mooy nit ñi jàkk loolu laay wax chaque chaque fois dama koy wax dama leen di wax ne maanaam Serigne Touba mi nu yaakaar daayira mbooloo yi am na solo waaye nekkul woon yitteem bu nekkoon yitteem du beru yitteem ñi jub nit ñi jàkk nit ñi mucc bu yowmal xiyaamee nit ñi mën a jàpp ci daj tàbbi ca kër kër kër àjjana ga mm. loolu rek moo nekkoon yitteem mais pas ñuy dajale ay ñaar dërëm ak i dërëm loolu mu nekk loo xam lu am solo la mm-hmm. kon bis boobu ñu nga xam ne ca la ñuy dajee mititlu ni te def nga liggéey bu am solo nag ndax am na noo xam ne su ngeen ko ni seetaanoon kon néega ni romb nañ fii affaire boobu ndax gaa yi dafa mel na dañoo tenté benn affaire mu nekk xalwu tàng ñu reculer waat mais bu ñu bàyyi woon dana dana dana romb fii te kon su danañ tàbbi ci biir piège boobu te mu nekk loo xam ne nii danañ am ay normes di am ay si ay ay panneaux de signalisation yoo xam ne nii tey ku dëkk ak nit ko nga bëgg a lu ñu war a def sax di nga xam foo koy jooyee. Hmm. mais xam nga li problème mooy la la la bukki waxoon ne am na nag wu dee am na wu dee waa ji topp ko ne ko bukki na ko nag wi daaj bi am na solo waaye daaj day am daaneel am na nag wu dee da fan la dee. <laughs> ko defee ñu mën a dem jëfandiku. Hmm. mooy cest à tey bu nit ñi naan réew mi yàqu na réew mi yàqu na. fan laay dem pour jooytoo ko léegi su lii taxawee rek ñu dooleel leen kàttanal leen dana dem ba nit ñi danañ ne ah xaaru ñu dem seeti waa ànd sàmm jikko yi suñ fa yeggee lii yaakaar naa ne dana saafarawu hmm. kon mu nekk loo xam lu am solo la euh, sëñ euh, Oustaz Sanit fii sëñ Maxtaar daal ne rek fa laa lay bàyyee dafay mel ni ñëw na ci tënk résumé ñu li ko tax a jóg hmm. ñëw na itam ci réalisation yi nga xam ne nii ku ko déglu tey mu ndëkk tàbbi sa nopp bi nga xam ne ah kon kat ñii def nañ hmm. war nañu xalaat ñii ba ñuy def faj yan moyen la ñu pour def ko parce que dañuy sacrifier seen bopp di dajale ci seen temps di boole seen alal ngir mën a jënd parce que téléphone yi bu ñu ko xeeb connexion bi gasoil yépp ci biir lay bokk waaye loolu mooy volonté ngir defar sunu réew ndax bay day tàmbalee ci sa weewu tànk lan nga nuy indil ci taxawaayu kuréel gi ñu door a ñëw nag ci e, partie bu mujj bi ci sensibiliser nit ñi nag ci bis bi ngir ñu génn mettitlu ak naqarlu waaye itam nag bokk benn doole bañ xam ne lii du fi am te du fi mës a am e, muy wàllum